na rek mhm. dama lay bàyyi nga commencé dalal ñi nga xamante ne ñoo di mbokki internet yi nekk ci ligne bi lu ko mooy itam mhm. mën naa dellu siwaat ci kanam rek ak li nga xamante ne moom moo nar a waxtaan wi waaw Jérôme euh, tey dak maaleykum salaam ah, mbokk mi ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la dalal ci seen émission seen kàddu fii ci 2A TV waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tey nag ponk yi ñu andi woon ngir daal di koy waxtaane bokk na ci euh, coalition Yewwi Askan Wi ak fàqeeku ga nga xamante ni pour gàttal euh, kii kon da ñëw rek ci waxtaan wi kon tàbbi nga si waaw première première bi may jëkk ñëw rek mooy ci wàllu Yewwi Askan Wi waaw man moom Pastef laa bokk maanaam man moom wootee fii nii ci islam dëgg Eh, yeewi yeewi askan wi nag leen rek laa leen di wax mhm. gis nga ñooñu génn noonu ñooñu ñooy tóob yi tóob yi ñoo génn ndax mhm. bi ñu jëm combat bi daa rëy bi ñu jëm waruñu fa yóbbaale benn hypocrisie mhm. waxuma leen ko nag pour ñàkk leen respect waxuma leen ko pour dépasser mais dama leen di wax pour ñi seen seen seen seen conviction ak ñu doon wax askan bi dafa dëggu leen fi ñor dañ koy macc lu leen tax di génn gisuma ko Mm-hmm. waaw léegi nag li may wax rek mooy yeewu askan wi kenn ku nekk na nga jàpp ne yeewu askan wi sa morom kenn ku ne sa xeex sa xeexu bopp la sa morom bu génnee am na droit génn am na légitime mu génn parce que nit ku nekk da ngay doxal démocratie mm-hmm. Mm-hmm. li ma leen di wax nag mooy nañu boloo nañu def bloc ñoom waa opposition bi ànd doon benn jëm fay jële Macky Sall mi nga xam ne moo fi nekk boobu mooy première bi deuxième bi mooy Macky Sall mi xam ne moo nekk fële sa siège la xaw mel na ku nekk ci mel na ku nekk ci gàmmu xaw ma di di waaraate di jéem wàcce ay askanam Macky Sall leem leem ak lu mu mën a def Macky Sall day wàcc réew mi sëñ bi hmm. gis nga sénégalais mën nga koo may xaalis saa su nekk hmm. mën nga koo defal lu ko neex ci àdduna bu la neexee sax defal te yi or wala bi mais bis boo ko mayul jàmm boo nekkee nguur gu soxor hmm. moom dañuy pare ci yow te Macky dafay jàpp doomu jàmbur yi di tëj Mm. Ami jam mi nga xamante ne Ami Dia mi nga xam ne borom njaboot la deful dara mu jàpp ko tëj cent quarante et yoo xam ne ay waa Pastef lañ ñu jàpp tëj ay nit di dee ci dëkk bi kenn du am xam leen lu ko leeral man dama am doom keneen am doom keneen am doom Macky Sall ci boobu am doom fukki doom ak ñeent dee ci réew mi Macky Sall di jaale ay tubaab mm-hmm. ci juróom-ñeenti tubaab bi dee ci sarbi lu mu mën a def lu ñuy xuloo de daf leen koy bëgg a jiñ daf koy bëgg a jiñ waa bi moom Macky Sall waa Sédhiou du ñu problème perte gi ñu perte Sédhiou du waa Sédhiou ñooy problème bi parce que waa Sédhiou yooyu perte Sédhiou bu ñu demoon ci waa Sédhiou dañuy gagné. Mm-hmm. Macky mooy seul balaa bëri na ci Saint-Louis balaa bëri na fépp koo xam ne Macky Sall dafa perte. Mm-hmm. Mm-hmm. te Kaawu Bamba Fall da koo firndeel. Kaawu Thiès Idrissa Seck da koo firndeel. Macky Sall mooy problème mu Sénégal te day génn Sénégal day wàcc ci nii wala ci naa ci naa ji nag mooy naka yàlla dafa jàmm yàlla may ko jàmm ba mu wàcc na jàppe nit ñi comme Amadou Sall na jàppe gone yi comme Amadou Sall mhm. jàppe doomu aadama yi comme moom na leen def nawle ko mais deful kenn nawle ci réew mi jàpp rek tëj jàpp rek tëj yow mel na yow amoo njaboot amoo doom quoi ñaari ñaari yooyu rek laa doon wax nii mais benn bi ci des ñun garaaw jaruma ci du quoi mais ñaari yooyu laa wax Macky yàlla na yàlla yàlla nañu yàlla dimbali ngir yàlla yàlla nañu yàlla tàqale ak Macky Sall ci jàmm ndax nguur gu soxor la nguur gu soxor bëgguñu ko. <laughs> d'accord d'accord on comprend merci merci merci ci xalaat bi nañu waxoon nañu waxoon nañu waxoon dëgg quoi. <laughs> yow ki moom 2A TV googu noonu teg nañ ko taayale doomu injustice. <laughs> muy dem ci maireem di dox ci suuf ñu teg ko injustice. mais ni nga ko ko tegee noonu lañ koy tegee keneen ak keneen te ci moom mu njëkkewuñu ci moom te du mujj ci moom te Ahmed Aïdara am na nu mu doon taxawee bu ñu nii ko ci loolu donte suñu taxawoon ba nga ko taxaw ba léegi mm-hmm. c'est-à-dire gi maanaam kii moo soxor quoi waa ji moo soxor soxor xam ne <laughs> Ahmed Aïdara ba mu nekkoon sax moo ko fa jëlee xam nañ ko ñun mm-hmm. d'accord mais yow ku am teg yow rek nga dëkk ndigam loolu mooy lan nguur gu soxor bëgguñu ko quoi ñoom na yombal dund na def lu ko neex mais tant que mi ngi soxor di jàpp nit ñi di leen xañ seen liberté dañ koy wàcc ci réew mi. d'accord d'accord merci beaucoup. d'accord merci. merci merci ci euh, xalaat bi ni ma ko waxee nag xam nga rek mbokki internet 2A bi man dama leen dama leen a bëgg sama biir xol ndax ku ci nekk. Mhm. en fait doo tricher. vraiment sa yëg-yëg rek nga daanaka sooy wootee di waxtaan sa yëg-yëg ngay ngay ngay ngay waxee mhm. moo tax des fois des dañuy comprendre ñoom ñi nga xam ne ñuy waxee waaye am na wax wax na mbir mu nga xamante ne dafa dafa am solo mhm. ndax eh, El Hadj Ahmed Aïdara bi mu tudd man toog na fi plateau ñu toog fi plateau mu wax fi lenn mhm. mu ne Macky Sall warul xas kenn boppam la war a xolaat ku mu àndal nit ku ku ku bàyyiwoo fu fu bàyyi fu mu nekkoon fekk ji ko su demee élection lay joxee exemple cité na fi Idrissa Seck. Mhm. daanut ñàkk Thiès Idrissa Seck dem ci dem jóge ci ba euh, bàyyi opposition bi dem ci moom. ñàkk man kay dama lay jox exemple sax. donc du ci Idi day moom nee na du ci Idi. dama lay jox exemple sax. atia. Ah, euh, maire Bambey bi muy faru bi muy falu. yow askan wi la nekkoon. bu muy falu effectivement léegi élection bi mu demee benn bokk yaakaar. dafa ñàkk dañ ko fa dóor dóor yi métti. kon maanaam du du ci nit du ci nit ki du ci nit ki. li ci nit ki c'est que peut-être population bi peut ñoo ñoo daal di daal di won ginnaaw ñi nga xamante ni ñoo te la la pour dëggal li nga wax bu ñu mm-hmm. fàttee xam nga waxoon nañ ko soxna Aïda Mbodj ñu ngi koy nuyu suñu yaay ñooñoo suñu yaay Bambey moo fa teg loxo moo fa teg loxo moo fa teg loxo moo fa te gis nga dama yàq mm-hmm. moom mm-hmm. depuis première maire maanaam maire maire sortant bi ba fa nekkoon Aïda moo ko fa tegoon effectivement mu war ko mu wor ko ba kii nii fa nekk nii. moo ko fa teg Aida ko fa teg. mu war ko kii war na ko. Mm-hmm. léegi nag ayda moom euh, nee na day jël ay propre responsabilité xam naa ne bu fekkente ni tamit ay ñooñam ca diwaanu Bambey dootuñu ko ci bàyyi pour bu buy tegati xam naa ne dina xam bu baax a baax. parce que jox na nit xaalis mu wor ko mu joxaat nit xaalis mu woraat ko. donc mu nekk loo xamante nii doy na waar lool ca diwaanu Bambey xew mooy politique ba am Bambey xam nga xam nga lan moo doy waar mhm. mais du ci moom kese surtout ci biir Yewwi Askan Wi ndax bëri na maire yi nga xamante ne dañ leen a faloon ci biir coalition Yewwi Askan Wi mhm. kenn xamul dañ leen a jënd mais parce que nit man yaakaaruma nit kenn ko jënd mais sa ngor la ñuy jënd ngor la ñuy jënd sa ngor la ñuy jënd soo xoolee Wakam ka fa nekkoon maire itam naan ko kenn xamu ko vraiment parce que yow mën naa lay wax ne su nekkuloon Aïda Mbodj mi nga xamante ni moo fa campagne biir Bambey ànd ak coalition Yewwi Askan Wi kooku du falu moom loolu moom maanaam soo demee yenn diwaan yi ñii ñi voté maire bi parce moom la xam mais liste ba la ñu te liste ba la ñu votel man dañ cey dégg beneen tur wi nga xamante ni kooku ñu wóolu kooku la ñu euh, ñu bëri man boog ñu bëri daanaka man moom xamoon naa ko mais ñu bëri xamuñu ko woon mhm. te man seen meeting yi maa doon téye micro central bi. di wax di dem di kii nga gis ayda de bi mu àndal moo tax am na benn meeting bu amoon euh, ca koñu maire bi. maire sortant ba mu ne ton tan gorewul bu tan gore woon bu nuy gubali mbaam mu ye mu yenu ca aw say. ndeysaan kontaan gone bu daal rien que pour exprimer peut-être li nga xamante ni moo nekk ci moom. te aussi tamit mer mer gi te man jàpp naa lii moom c'est un message que je lancer pour ñi nga xamante ñoom ñooy suñuy ay leader politique. Mhm. dañuy di gestu di bàyyi xel seen i askan. ci tànneef bi. ci tànneef gi aussi parce que tey soxna Aïda Mbodj defal na Bambey lu nekk. defar na leen lu ne. waaw te actuellement dafa toll foo xamante ni tamit mënul di xëccoo ak i rakam ak ñi nga xamante ne amee nañ vision politique. vraiment moom mu accompagner leen ba fii muy xëccoog ñoom ay poste PCA euh, président conseil d' administration wala maire Bambey moom dafa weesu. donc day xool ci ñi nga xamante yoo nekk ci peggam mu wóolu leen am jàpp ne am nañ gis-gis bu baax am nañ vision bu baax te mu xam leen aussi mu jiital leen loolu day am mais nit ki tamit ci goreem mhm. ci goreem ah. mhm. ak ci gëm-gëmam bi mu am mhm. politiquement ba topp soxna Aïda Mbodj ba population Bambey bi wóolu ko ne ko ginnaaw soxna Aïda yaa fi nekk soxna Aïda yooyu la wóolu ñun yow la ñuy wóolu dénk la suñu mairie mais yow goreel nga des ci ñooñu depuis 94 Aïda Mbodj mu ngi Bambey waaw d' accord euh, ñoo ngi may tooñ naan nekk ñu Bambey effectivement nekk ñu Bambey exemple bi moom ñu fa yóbbu am na ko nekk ci ligne bi dañ koy rek daal di euh, dalal euh, jox ko kàddu gi moom mi nga xam ne da cee woo dafa woote ci ligne bi ngir rek daal di joxe xalaatam salaamaaleykum salaamaaleykum alo malheureusement kooku kooku dem na waa jibi itam duñu fa yem dañuy jaar rek tamit di nuyu ñi nga xamante ne ñooy suñuy ay euh, mbokk internet di ñu bàyyi à chaque fois rek suñu euh, commencé li nga xamante ni moo di euh, moo di waxtaan wi dama ci lim ku ci mel ni Fatoumata Diaby di suñu xarit vraiment mhm. suñu fidèle internet ñoo ngi koy nuyu di ko di ko remercier ci ma